balance bi dafa mel ni dafa am problème wala day kale moo tax ñu jël ko denc ko ba yeneen jamono gars yi maa ngi leen di ziar bu baax a baax di kontaan ci yéen ñaanal leen jàmm ak salaam information yu te wóor topp leen ni ci abonnement yow mi ko def ba pare cant ngërëm yéen la yow mi ko defagul man ngaa def sab abonnement information bi wadd na fi équipe bii nga xam ne mooy équipe bu balance daanaka dinañ toog lu yàgg yàgg duñu mën a déggati boobee émission nga xam ni ki ko doon euh, def mooy kii di euh, Papa Ndiaye. nga xam ne daanaka ginnaaw kàddu yi mu yëkkati woon jamono yee passé yëkkati ko ci plateau bi en même temps di wax ni am na lu muy waajal loo xam ne daanaka waajal googu bu ñëwee gars yi danan dar gémmañ wala boog loxo dana dar gémmañ loole nag Pape damay yaakaar ne bu fekkee da nga koy waxee boo amu sens doo ko waxee ci télévision bii di wal Walf TV ndax euh, émission boobee nga xam ne fi mu toll nii dakkal nañ ko bu jëmi jamono euh, Pape euh, kii nag nga xam ne daanaka moo nekk Moustapha Diop di directeur Walfadjri yor li nga xam ne moo jëm ci kër googu yéen a mi doxee moom mii di Moustapha Diop Gone ak Louga gi ci xibaar yi nga xam ne am nañ ko moom moomee xam le na ni du dara lu dul maanaam dañuy jël émission boobee xool maanaam yi nga xam ne moom lañ ci war a yokkaat yi yéen ci war a dolli maanaam ay cabaxal yoo xam ne bëgg nañ ko ci def xoolaat maanaam ci suñu biir suñu petit réglage yoo xam ni war nañ koo réglé waat mën naa am buñ ko réglé bu ñu ñëwaat lépp mën naa tegu ci yoon waaye loolee nag li tax ñu bari ñaaw ci njortu mooy ginnaaw ba nga xam ne moom Pape Ndiaye def na révélation foofu ak tey jii la problème yi commencé maanaam di gundaandaat ndax Pape nag wax dëgg yàlla la mu jotoon a wax ci émission boobee di xam la ni maanaam ci beneen côté bi fa lay mujj nag di leen sulli seen i yoo xam ne mbóot la yoo xam ne bu ko sullee maam mbóot yooyee ñu baree bari dana am fu ñu féetale mbir yi ndax jàpp nañ ni côté bi ci côté état bi rek la problème bi amee waaye opposition bi am na ci ñoo xam ni daanaka yéenewul kii di président Ousmane Sonko jàmm te am na yeneen yoo xam ni laax na ko ci waaye loolee lépp nag mënunoo wax ni moo tax Moustapha Diop def ndànkam wala mënunoo wax ni moo tax Walf Fadjri def ndànkam waaye dañuy jël li nga xam ne mooy mm, yónni maanaam nanu nañu yónni yàgg comme ni ko wolof di waxee. ñu jéggalu bu baax a baax bu ko defee nag lépp lu ci am nag danañ leen ko indil waaye li leer ba leer mooy émission boobee moom dakkal nañ ko fële ca